bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala ashrafi alanbiyaai wa imaami almursalin sayyidina wa nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam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 bokk sant yàlla buur bi tabaraka wa taala mu ñu may xéewalu bés di yowma tulasa di bésu talaata bi ji tey xanaa di leen fàttali ne rek des na suñu diggantek tamxarit bi di dégmal si di ñëw vingt-deux ñaar fukki fan ak ñaar moo des suñu digganteeg tamxarit ñii ñaan yàlla buur bi tabaraka wa taala ñu ngi koy seen muy ñëw yal ñu fi fekk buy dem yal nañu fi bàyyi waaye lépp luñ fa jaamu yàlla yal na ko buur yàlla nangu amin ya rabbal alamin mbokk yi talaata ji moo tombek fukki fan ak juróom ñeent le 19 ci weeru zilhijja ci weeru tabaski bi ñu nekk ni ñu ngi tàggatoo ak moom jour par jour yéen a ngi fàttaliku ne keroog ba ñu tombe woon ci juróom ñeenteelu fan mooy neuvième jour bi xew-xew ju mag ba xewoon ci communauté musulman yi muy wuquufu arafa taxawaayu arafa la fa xew la fa nekk lépp lañ fa ñaan yal ko buur yàlla nangu ña wooroon bis ba lañu na ko buur yàlla nangu waaye yal nañu yàlla defal lam ñu dig ne loolu muy jéggalaakoor bay balle ci siyaam yowmu arafa noonu lañu jàllar bekoo gannaaw si mooy fukki fan ci weeru tëbaski ñu daldi defar suñu gàtt yi daldi joxe rakaateen li iidul adha al mubaarak ñu daldi joxe ñaari rakk yi nga xamante ne yàlla moo ko digal yonent bi mu sunnal ko kon noonu lañuy ñuy jàppee bés ba ci ëllëg fukki fan ak benn fukkeelu fan ak ñaar fukkeelu fan ak ñett ba lañu sunnal ki war a defar gàttam xadd bañ ka tëralal waxtu bañ ko ko may waxtu woobu daal di jàll noonu lañ ko jàppoo ba démb ñu tollu ci les dix-huit tey bésu talaata bi ñu toll ci les dix-neuf ñu di leen xel rek des na suñu diggante tamxarit vingt-deux jours mooy ñaar fukki fan ak ñaar yàlla buy ñëw nañu fi fekk buy dem yàlla nañu fi bàyyi waaye lépp lañ fa jaamu yàlla yal na ko buur yàlla nangu amin ya rabbal alamin di leen fàttali ne rek moo tombe gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mille quatre cent quarante cinq ans su ko defee mu nekk calendrier musulman ya ñuy faral di bàyyi xel muy ànd ak euh, jullit ñi ci seen doxalinu weer mbokk yi yal jàmm yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot ñu fas yéene wéyande ki waxtaanu fajar fii ci Rewmi FM ñu bëggal leen andil bunt ju nga xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wa moo ko baaxee xeet wi ci jamonoom xadis bi nag ba ko bi doon baaxe askan bi ak suñu jonni yàlla ji di tey moo tombeek gàddaay ba mu gàddaay jóge ko Makka de Madinatul Munawwara mille quatre cent quarante cinq ans waaye dafa mel ni xadis bi jamonoy tey nitu tey yii la yonent bi di waxal sallallahu alayhi wa sallam moo doon baaxee askan bi xadis bi kenn na ne woon jikko yi doomu aadama yi dinañu tollu bi méngoog la yonentu bi baaxe ci maana xadis bi sallallahu alayhi wa dafa am jikko bu mu baaxee woon saxaaba yi ridwanullahi alayhim ajmain ne leen jamono de dina dikk jamono dina ñëw ci mujjantilu jamono climat bu naxaree nettali climat bu naxaree xool mu ñëw installé wu ci kaw sama xeet ba tax na bi mu ko doon wax abi hurayrata radiallahu an mu ngi toogoon ci jotaay bi kon saxaabi boobu di abi hurayrata radiallahu anhu moo génne xadis bi moo tax xadis bi tàmbalee ne an abi hurayrata radiallahu anhu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ya'ti ala nnaasi sanawaatin xadaa'atan yusaddiqu fiiha alkadaab wa yukdibu fiiha alsaadiq wa yu'tamana fiiha alxaa'in wa yaxuunu alamin wa yuntiqu fiiha al ruwaybada qiila wama ruwaybada qaala sallallahu alayhi wa sallam arrajulu taafihu yatakallamu fi amri al am axrajahu ibnu maaja wa ahmad silsilatun saxiix mbokk yi yal na jàmmi yàlla nekk ci yenn ak seeni njaboot wallahi xadis bi xadis bu raglu la xadis bu naqaree dégg la waaye dafa fekk ne rek dafa tombek jikko yi ñi ci askan bi xadis bi dañ ne xadis bu naqaree dégg la waaye xanaa dafa fekk ne rek daa tombe jikko yi ñenn ñi ci pénc mi tax na ki ñu ko baaxee di suñu yonent bi di ar rasulul mustapha sallallahu alayhi wa mi nga xamante ne buur yàlla tabaraka wa taala moo garanti kàddoom mu ne ñu laa yantiqu anil hawa in huwa illa waxyun yuha sama sang bi de kama doyloo ci askan bi kama doyloo ci xeet bi ba ma koy yónni ci sama jaami ki kat du wax dara ci cobbare ba kanam kii kat du wax dara ci bànneexu ba kanam xanaa kañ li fi nekk mooy lépp la mu wax mooy la ma ko waxyo yo sallallahu alayhi wa batax na saxaabi ya dund ak moom saxaabi ya nekk moom ci jamonoom ñu gëm ko topp ko ñu di taataan lépp lu muy waxtaan ak ñoom ca lay askanu communauté julit ñi kenn ci saxaabi yooyu di abi hurayrata radiyallahu anhu moo ñu baaxee la ko yonent bi baaxee ci seen jamono sallallahu alayhi wa mu dëppook lenn ci jikko yi ñenn ñi ci suñu jamono yi tey jii yal nañu ko yàlla fayal mbokk yi saxaabi bi di abi hurayrata radiyallahu anhu daf ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yàlla bi daf ñu baaxee nañu sallallahu alayhi sa yaati ala naasi sanawaat dina dikk ci nit ñi ay at yoo xamante ne xadaat dina doon ay at yu ay at lëndëm ay at yuy ni nit ñu foo ñooy faral di nekk ci moment jooju àdduna si day bari ñoo xamante ne dañuy foo duñu nekk ay nitu vrai ay nit yi nga xamante ne seen jikko lépp da day fóow lépp ay naxsaay ay nit yoo xamante ne duñu tekki dara ay nit yoo xamante ne duñu xam fu ñuy teg seeni tànk ay nit ñi nga xamante ne dañuy salfaañee lañu xàmmee woon ci dëgg ba tax na mu sa yaati ala nnaasi sanawaatu xadaata dina dikkee nit ñi dina dikkal nit ñi ay at yoo xamante ne xadaatan ay at guus ay at yu naqaree xàmmee ba na ñàkk xamme xàmmee ñàkk dina yóbbee nit ñi yonent bi nee na yusaddiqu fiiha alkaadib dinañu dëggal kañu xàmmee fen fenkat yi ne la ñuy jàppee waxkatu dëgg fenkat ñi ñay wax la dëgg la askan bi di naw ñooñu la ñuy jàppe waxkatu dëgg mu ne ñu tamit ñaareel bi wa yukaddibu fiiha al saadiq képp ku nara nekk waxkatu dëgg yow la ñuy jàppee fenkat képp ku sax ci dëgg yow la ñuy jàppee fenkat yow la ñuy jàppee kuy wax lu du dëgg waaw waxkatu dëgg yi kooku ñoom lañuy ñuy jàppee fenkat ñi ñuy wax lu nag ñooñu la ñuy jàppee waxkatu dégg waaw kon affaire bi tendance bi jamono ji bi di joxoñ fii tendance bi day renversé wu waaw moo tax mu ne sa yaati ala naasi sanawaat dina dikkee nit ñi ay at yoo xamante ne xadaat ay at yu lëndëm at yu guus at yoo xamante ne climat bi day nëx ba tax na kenn du xàmmee lanay lan climat bi daal day jaxasoo ba tax na tendance bi day renversé wu moo leen di yóbbee yusaddiqu fiiha al kaadib ñuy diggal ku ñu xame fen ñañu xamee fen ñooñu la ñuy jàppee waxkatu dégg mu ne ñu wa yukadibu fiiha al saadiq ñuy weddi ñay wax dëgg waxkatu dëgg yi daal dañ leen di weddi jàppe leen fenkat ñi waw kon tendance bi renversé na waaw ñay wax dëgg bu ñu demee ba jàppaleen ne ñooñu daal wax dëgg ci jamono ji day tumaranke ku koy wax sax sa dëgg boobu dañ leen koy jàppee ne fenn pour nga mun a wax ba ñu mën laa gëm da wax ludu dëgg da ngay fenn fenn fenn ba ñu naw la ci fenn boobu ngay fenn ñu jàppee sa kàcc yooyu ne mooy dëgg kon tendance bi renversé wu na dëgg bi ngay wax nag kenn du la dégg kenn du la déglu kenn du dégg sa dégg yi waaw faf dañuy jël sa dégg yooyu ngay wax ñu déggaate ko nappaaje ko kenn di ko déglu kenn di ko dégg te moone dëgg ngay wax de yow waxkatu dégg bi la ñuy jàppee fenkat fenkat bi nag moom la ñuy jàppee waxkatu dégg kon tendance bi na muy renversé wu c'est extrêmement ordinaire wallahi alazim day day day garaaw bu yemee foofu sax mu neex waaye mu ne ñu ba léegi jamono bu nëx boobu ba tax na nit ñi duñu xàmmee lanay lan dina lu yóbbee ba léegi wa yut wa yutamanu fiha alxaain waaw workat bi la ñuy jàppee ku wóolu ki ku ki nag kooku la ñuy jàppee workat bi moo tax mu ne wa yaxuunul amin waaw wa ki wóor ki képp ku wóor ci jamono jooju dañ lay joxoñ ne yow yaay workat képp ku ñu képp kuy wor kooku la ñuy jàppe ku wóolu ki kon su fu ñuy jëm ay bii jamono waay bu ñëwul tamit de ah jege na de wallahi la azim bu ñu yonent bi tegtal nii dama ne bu ñëwul jege si na waaw yonent bi nee nañu dañuy wóolu kañu xamee wor la ñuy jàppee ku wóolu ki moo tax mu ne wa yu'tamanu fiiha al xaa'in dañuy woolu ki ñépp xamee wor maanaam wor daal moom la ñuy jàppee ne kooku mooy ki am baat ci jamono ji ñuy xoole ki ko ki lambo kóolute ki wóor ñu di ko xoole botu wor workat bi waaw moo tax mu ne ki ñépp xamee wor Mm-hmm. moom la askan bi di jàppe star waaw ah, moom la ñu askan bi di jàppe ne kooku mooy star moom la ñu wóolu moom la ñuy wax seeni biir moom la ñuy wax seen secret moom la ñuy dënk te moone ne loolu da leen di wor te du mujje fenn waaw ah. yonent bi nee na workat ñi la ñuy jàppee ñu wóor ñu wóor ñi nag ñu di leen xoolee botu workat ñi ñu wóor ñi ñu jàppee leen workat ñi kon tendance bi renversé wu bi léegi mu teg si ne wa yutqinu fiixal ruwaybida mu daldi joxoñ melokaanu jikko joo xamante ne arab yi daawuñu dégg baat boobu ba tax na bu leen waxee baat biñ toll ni ruway bi da dañ ko laaj xiila wama ruway bi da dañoo laaj yonent bi ne lan mooy ruway bi da yonent bi ne na woy yutqinu fii xal ruway bi da ruway bi da mu daal di am baat ci seen askan ruway bi da nekk jëmm joo xamante ne moy wax ci baatu mbooloo mi araab yi daal ko laaj ndax baatu ruway bi da araab yi tàmmuñu di ko dégg ba tax na keroog yenentu bi ba leen waxee baat bi di ruway bi da dañoo laaj yenentu bi ñu ne ko woma ruway bi da lan yow mi yàlla yoon qaal yenentu bi leen rooy bi da mooy rajulun taafixu fi amril am ab waay joo xamante ne xamul guddig bëccëg xamul ndeyjooram ak càmmuñam xamul dara ba dara booloo jeex du ci xam-xam du ci sagesse du ci hikma du ci hikaaya du ci dara ba dara booloo jeex kooku mooy am fit ak sañ-sañ bu toll ni mooy wax ci mbiru mbooloo ma mu nekk waaw mbooloo waaju xamul dara ba dara booloo jeex mooy daldi am baat bu tollu ni mooy wax ci ni mbir moo tax yonentu bi tuddee ko ruway bida ruway bida mooy la ko bi melale sallallahu alayhi wa waaye joo xamante ne xamul guddeeg bëccëg xamul xii nag taw xamul kerak naaj xamul loxo ndeyjooram ak loxo càmmoñam munuta laabal boppam ci diini bi munuta xàmmee lenn lu ñu tere wala lu ñu digal ci diini bi kooku mooy am fit bu toll nii taxaw di wax fii amril amma muy wax ci mbiru mbooloo ba mu nekk di dundu mbooloo julit beeg moy wax ci baatu pénc mi mooy wax ci baatu askan bi te kooku wóor na ko ne jàngul xamul xàmmeewul mbokk yi dañ ne jamono bi buñ ci tolluwul fa la dégmal di jëm jamono jooju yonent bi joxoñal saxaaba yi dañ ne moo nekk nii di ñëw ñu ngi koy séen mu ñuy séen amaana soreetul kenn ku nekk na xool na askan bi di doxe ci télé yi ci rajo yi ci plateforme yi kenn ku nekk jàppee sa bopp yaa war a wax si turu askan te loolu ngay wax dara wóoru la ci du li nga jëlee ci téere yàlla bi di alquran du li nga jëlee ci sunna su yonent bi sallallahu alayhi wa du lu nga toxal ci aqwaalul ulama u saalihin amuloo dara li nga tegtaloo ci kàddu boroom xam-xam ñu baax ñi mbokk yi bu fekkente ne yenentu bi sallallahu alayhi wa sallam joxoñal mujjuntelu jamono dina dikkee nit ñi at yoo xamante ne climat bu nëx climat bu guus climat bu xaw lëndëm mooy ñëw installé seen kaw ba tax na climat bu nëx boobu climat bu guus boobu climat bu ñàkk solo jooju moo leen di yóbbee ñuy dëggal ki ñépp xam waxlu du dëgg waaye ñuy weddi ki ñépp xam wax dëgg képp koo xamante ne warkat nga ci askan bi yow la ñuy tabal garaadu ki wóolu képp ku askan bi xamee ki wóolu képp ku askan bi xamee ki wóor kooku la ñuy tabal garaatu wor su ko defee yàlla daal leen natoo ab waay ju xamul dara ab waay ju jàngul dara xàmmeewul ndeejoor ak càmmoñ xàmmeewul penkook sow xàmmeewul lay laabal nit ak lay taqal nit xàmmeewul guddeeg bëccëg xamul dara bi dara booloo jeex kooku la yonent bi melale ruway bi da xamul dara ba dara booloo je tax na baat bi nekk gan ci nopp sahaaba yi ridwanullahi alayhim ñu daal di laaj yenent bi ñu ne ko wama ruwaybida lan mooy ruwaybida yow mi yàlla yónni qaal yenent bi ne leen arrajulu taafihu yatakallam fi amri al waajoo xamante ne xamul dara ba dara booloo jeex te wóor na ko ne xamul dara mooy tekk fitam taxaw ci pénc bi taxaw ci tele yi taxaw ci rajo yi muy wax ci baatu askan bi te la muy wax dara booloo dara booloo jeex wóoru ko ci xamu ci dara mbokk yi bu fekkente ne jamono bi nekkuñu di ko dund ah sori wuñu ko de moo tax abi hurayrata radiyallahu anhu mu neñu yonent bi sallallahu alayhi wa daf ñu baaxe ci maana xadis bi sa yaati dina leen dikkee ala naasi nit ñi sanawaat ay at yoo xamante ne xadaat ay at nëx waaw ay at yu bu lëndëm ba tax na climat bu lëndëm boobu nit ñi duñu xàmmee fa ñuy teg seeni tànk climat ba nga xamante ne bu ñëwee installe wu ci kaw askan bay dund climat bi climat bi moo leen di wor waaye day fekk tamit ñoomit ñu nekk ay askan ya war a mën a dund ci ron climat boobu ba tax na yonent bi nee jikkoy askan woowe day bokk ci ñoom yu saddiqu fiiha al kaadib dañuy déggal fenkat ñi képp ku ñu xamee fen yow la ñuy jàppee waxkatu dëgg wa yukaddibu fiiha al saadiq dañuy weddi di fenloo képp ku ñu xamee waxkatu dégg kenn du la dégg kenn la déglu kenn du la déggal waaw waaye nag dina leen yóbbee ba léegi wa yu'tamanu fiiha alxaa'in dañuy wool di am kóolute di wóolu képp ku ñu xamee wor workat ñi lañuy def ñi am kóolute workat yi lañuy def ñu am amaana kóolute ñoom dañ koy jëmale ci workat ñi workat ñi lañuy ñuy jàppee ñu wóor ñi wa yaxuunul amin dañuy wor ñu am kóolute lañuy ñuy jàppee workat ñi su ko defee buur yàlla daldi leen nattoo wa yutqinu fiihal ruwaybida wa yutqinu fiihal ruwaybida yonent bi daal di leen wax ne roway bi da mooy doon seen porte parole jamono mooy jël flambu kàddu gi lépp lu ñu war a wax moo leen koy waxal mooy wax ci baatu askan ba tax na saxaaba yi daal di laaj yonent bi ñu ne ko xiila wama ruway bi da yow mi yàlla yónni lan mooy ruway bi da qaala sallallahu alayhi wa sallam yonent bi daal di leen wax ne rowe bi daal mooy ar rajulun taafihu góor gu xamul dara waaju xàmmeewul guddeeg bëccëg waaju xàmmeewul dara be dara booloo jeex kooku moy takk fitam di leen wax ñuy jëf mu di leen tere ñuy bàyyi te lépp lum wax ñu di si jëf moom ci boppam xamu ci dara be dara booloo jeex lépp lum leen di tere ñu di ko bàyyi xamu ci dara be dara booloo jeex kii la yonent bi tuddee roway bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi jamono ba yenentu bi joxoñal saxaaba yi de bu dee nekkuñu si kon sóoriwaate wuñu ak jamono jooju kon su ko defee ñu bàyyi xel xadis bi ñu géem a suñu xam-xam géem waxtaan ak suñu njaboot ca mujjanteelu jamono comme ñu lu ñu yàlla noto ñu di ko waxtaan ak yéen ci penc bi fii ci Rewmi FM ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala an yajalana min alladina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana yàlla ñu yàlla wërsëgal lépp lu ñu dégg ci kàddu ñu tànn ci lu ci gën a rafet ñu jëfe ci lu ci gën a jekk amin ya rabbal alamin mbokk yi seen xarit jaawa jàlla moo nekk ci technique bi waxtaan bi jeexul dañoo yegg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi ñu ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala taskatu xibaar yaa ngi nii taxaw war a joxe xibaar ci nasaraan nasaluka ya allah an taxfada bilaadana min alfitan maa dahara minha wa ma batan allahumma aminna fi awtaanina waslih allahumma a'immatana wa wulaata umurina allahumma ya rabbi ixfada bilaadana min alfitan maa dahara minha wa ma batan allahumma aminna fi awtaanina waslih a'immatana wa wulaata umurina allahumma rabbana atina fi dunya xasana wa fi l axirati xasana wa qina adaaba annaar aqulu ma tasma'un baarakallahu lii wa lakum fi alqur'ani alazim wa nafa'ani allahu wa iyyakum bima fihi min alayati wa dhikri alhakim aqulu ma tasma'un wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh